alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah la la yatabayyanu summa salaatu wa salaamu ala ashrafi xalqillahi mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant tamit mawlana cheikh di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla fayal mawlana cheikh Ibrahima Niass alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala ashrafi xalqillah mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an bi aynil katmiya wal xatmiya wa jazallahu anna man huwa zilluhu wa mazharuhu abadan moolana cheikh ibrahim Niass ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi ñu gërëm cheikhu tijaani waaye tamit di ñaan yàlla yàlla fayal moolana cheikh ibrahim Niass jamono bu jot rek nit ñi war nañuy dellu si li passé ndax ñi ko fekkewul woon mun cee tegtaloo ñi ci war a jëriñu jëriñu fi ñi si narta lor muccee si te yaakaar naa looloo taxoon ñiy bind di bàyyi dama dégg benn borom woykat muy wax naan sëriñ si li ñuy gënee nit ñi mooy bu ñuy dem dañuy bind bàyyi waxuma la sëriñ ci waaye yonent yi sax bind nañu bàyyi guddi yàlla yi bind nañ bàyyi ñi yàlla namm nit ñi jëriñu ci ñoom feeñal seen wilaayatu kenn demul loxoy neen bind nañ bàyyi lu tax pour ñuy ñëw ci seen ginnaaw mën a dund dund bu leer kon nag ñoom ba ñuy bind di bàyyi dañu namoon ci ñi ñëw seen ginnaaw ñu tegtaloo tegtal bu leer kon nag tey bind ya kilifa ya bindoon bàyyi loolu rek lañ ko indiwaat pour wax ci wax joo xamante ne dafa siiw tey ci jamono waaye nekkut ne dafa xew muy maarifatu billaahi li ñuy wax xam yàlla siiw na tey bokku ku ne di ko tudd waaye nekkul ne waxi tey la wala xam-xam bu bees la wala tey la yàlla maye wax jooju nag ci boppam li tax ñuy wax ñun dégg nañ ci alquran yàlla di wax na nañ ko jottalil yonent yàlla muhammad di wax ne nañ ko jottalil cheikhu tijaani tamit santaane ñu jottalil ko mawlana cheikh ibrahima ñas waxi noppi kon wax jooju ci lañuy ñuy ñëw rek del siwaat muy maarifatu billah cheikhu tijaani dafa wax ne wala nettali ñu ne dafa bind ne alxaqu yalhamal abda wal abdu yafhamu man alhamas sawaaba wajaba alayhi nutq li yantafia bihi lxayru dalika almuraadu al aham walmaqsuud fi tariq wax ji lu muy tekki mooy dañu wax ne yàlla de mooy day jaam bi boppam jaam bi bés bu comprendre yiw wi yiw woowu mooy maarifatu billah wajaba alayhi nutqu dañ cee nar a wax ndax ñu ne li tax mu ne pour kudut yow ci ni nga jëriñoo ndax loolu quintessence bi te mooy jubluwaay bu am solo bi ci tariqa kon loolu bokk na ci ne faw jaam yàlla yi wax forcé wuñ kenn pour mu gëm xëccuñu kenn waaye danañu wax nit ñi ne lii moom dëgg la ndax Cheikh Ibrahima Niass dafa wax ne loolooy sama dox mooy buntab yàlla bi te jàng damm-damm yee ko fi tax a jóg te damm-damm bi gën a mag ci damm-damm yi mooy ñàkk xam yàlla loolu nag di mission Cheikh Ibrahima Niass mu tasaare ko ci àdduna bi nit ñi di weddi mu ne diw xam na ko diwit seede na ko diwit seede na ko man mii ci diw moomu ci laa bokk yéen ñiy toog ci diw moomu ci ngeen bokk kon seede war nañu loolu rek ñu wax loo te képp koo xamante ne dëgg googu jëlee nga ko ci Cheikh Ibrahima Niass te lu fi Cheikh Ibrahima Niass indi rek dëgg-dëgg mu ngi ko jëlee ci yonante bi ak Cheikh Tidiane yi nga fekke fuñ koy weddee waxoo ne dëgg la feeñal te yàlla ñu yàlla musal si naa fekk wax ci nag dafa am lu ci am solo ndax maarifatu billah ak fatxu ak wusul nekkul ne waxi tey la ndax fekk nañ ko fi alquran yàgg na te fekk nañ baat ndax ñëpp dégg nañ ci alquran inna fataxna laka fatxan mubinan li yaxfira laka allah ma taqaddama min zanbik wa ma taaxar loolu kon baatu fatxu ñëw na foofu kon mënuñ koy weddi luy fatxu nag loolu la ñuy uti ci góor yàlla yi définition baat boobu la turu baat ba ak melo baat ba ak jëmmi baat ba loolu la ñuy la sëriñ te sëriñ bi mooy waliyu bi te dañu wax ne al waliyu laa yaati bi ilmin jadid bal yaati bi fahmin jadid waliyu yàlla du indi xam-xam bu bees dégg bu bees lay indi moo tax ñun jamonoom di ko topp ba tey ci alquran déggaat nañ nasrun min allaahi wa fathun qarib déggaat nañ baatu fatx foofu déggaat nañ ci alquran tamit iza jaa nasrullahi wal fatx kon baat yi muy fatxu muy maarifatu muy jazbu wusul xadaratul quds fanaa tëjëli taraqi baat yooyu yëpp dañ téere góor yàlla yi téere góor yàlla yooyu nag ci boppam tegtalu neen moo ci nekk waaye nag bu dul dara yàlla moom waxal na boppam ci xadisul qudsi ne law la maarifatu lamma xalaqa allahu al insaan lawla al insaan lamma xalaqa allahu al anaam abdi xalaqtuka li ajli wa xalaqtu kulli shay'in li ajlik xadisul qudsi bi dafay wax ne ba tey ci maarifatu yàlla mu ne bu dul woon xam maanaam maarifatu xam du ma bind mbindeef bu dul woon mbindeef du ma bind du bu dul woon xam du bind doomu aadama waaye bu dul woon doomu aadama du ma bind benn mbindeef mu ne kon yow doomu aadama yi nag ma ittewoo sa lépp walis ngay ittewoo lu dul man waaye li ci am solo mooy lawlal maarifatu bu dul woon xam xam la xam yàlla kese la ndax ñëpp seede nañ ne dara amu fi lu dul yàlla qul wallahu ahadun allahu samadun lam yalit walam yuulat jurut kenn te kenn juru ko jógewut ci kenn te dara jógewut ci moom walam yakun epi nekkul ak kenn ku fa am kuñ koy dendaaleel wala luñ koy dendaaleel moom rek kon nag bu fekkee ne ñëpp xam nañ ne yàlla rek a fi nekk dëgg-dëgg nag nangu nañ ne dëgg-dëgg nag waruñoo xam kenn ku dut yàlla moo tax nag maarifatu boobu ci boppam da ngay dégg ne junj la mooy lan xam junj yi wala gis li gaa yi gisul wala yëg fi luy gaa yëgut muy baatin bu yàlla di sedd jaami yàlla ndax am na ndax boo demee ci alquran yàlla mu wax naan wa iza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunuhum ayunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al mu ne gaa yi yàlla yi bés bu ñu déggee li yàlla wàcc ci yonantoon dégg googu nag bokkul ak dégg jumxuur gi li ñëpp déggee waaye ñenn ci ñoom bu ñu comprendre la yàlla wàcc ci yonant bi lañ ci comprendre te nit ñi xamuñ ko ci ndeysaan te mënuñ ko wax ak nit ñi day tuur seen rongoñ kon xam nañ ne ndekete yoo dana am lu yàlla wax am ñu ci am dégg am ñu ci am dégg yàlla wone am ñu gis am ñu gisul fa ngay gisee luñ gisul ak fa ngay déggee lu gaa yi déggul la la may loolu mooy xam-xam bi ñuy wax maarifatu billah loolu nag ci boppam mooy xam-xam bi nga xamante ne junne di wax na soloy xam-xam bi mu ne law naclama ann taxta adimi sama ashrafa min hada al ilm alladi natakallam fihi maa asxaabina la saaytu ilayhi su fekkoon ne Junayd yi dafa toog taalibe mi mu ne su fekkoon ne ci ron asamaan sii ak ci kaw suuf sii ñuy dund am na xam-xam bu gën nooble bu gën a jarat jóg ak sonn ci kaw suuf budut bii ñuy wax ak yéen ñun jóg nañ dem uti ji boobu mooy kon maarifatu billah mooy xam-xam bi jëriñ te xam-xam sutu ko kaw imaam Ghazali ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam ak shariatoom ak déggam waaye moom it ne njàng rek la imaam Ghazali du ommatu ci ginnaaw sëriñ ndax réerut wu moom réer taxu kaa ut sëriñ ndax jàngoon na nit ñi di teg tegtaloo ci moom mu toog ba ci yàgg yëg ne man ndax li may wax nit ñi dëgg la loolu yàllaa ko bëgg a dimbali mu ne bërit dem uti ji ko ba mu ko jotee ci gàttal boo demee ci téereem bu muy wax ixya ulumu diin imaam Ghazali mu ki wax naan man laysa lahu nasibun min ilmi alqawmi yaxaafu alayhi suul xaatimati mu ne képp ku amul cër wala képp ku jotul ci xam mu góor ñi mujj ku rafet gisalu wala ragalaal naa la mujj ku ñaaw mujj ku rafet yaa ngi koy amee ci xam sa borom kon ñii ñëpp ay kilifa la yoo xamante ne tey dëgg-dëgg wax nañ ci maarifatu billah kon ay jamono di dox ba jamono ji tey bañ bàyyi wala iñaane Cheikh Ibrahima Niass wilaayatoom mayam tax ngay wax ñun buñ noppee ay naafeq xam-xam bii nag Cheikh Ibrahima Niass da cee wax mu ne fa inna haadihi l ilm haadihi kaana indi muddatun tawilatun wa ma samia min ahadin maa yadullu hu ala in li ilman xaasan min saairi ahbaabi wal wa jiraani amrullahi Cheikh Ibrahima Niass dafoo am lu mu wax mu ne xam-xam bii jot teel naa ko jot mu nekk ci man diir bu gudd kenn mësuta dégg luy tegtaloo ne am naa xam-xam buñ ma jagal bu jóge ci yàlla ci sama mbokk yi sama dëkkandoo yi sama jegeñaale yi amul kenn ku mësa a ne am na xam-xam buñ ma jegee ba yàlla indi nag mbiram ma ne tasaare loolu nag tey ñu ngi koy dund fu ne ci àdduna bi moo tax bàyyi mu ne xat atal fatxu allazi xat rumtumu fa in uttumu utna madal azman Cheikh Ibrahima dafa ne fatxu googu nga xamante ne yàlla mu wax naa naan naa fataxnaa laka fatxan nga dégg nasru min allahi wa fatxun iza jaa nasrullahi wal fatxu fatxu googu ubbee gi ñu lay ubbee ba ngay jàkkaarloo jëm yàlla ji xam yàlla ci turam waak melom waak jëmmam ja Cheikh Ibrahima mu ne xam-xam bi tukkee la ci man jëm ci ci yéen fekk yéen a koy bëgg dama leen koy jox ba pencam yàlla loolu noonu mbaaxu yàlla la te moo ko moom da koy may ko ko xam-xam boobu yàgg na ci jamono ndax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam junj na ci mu ne inna min al ilmi ka ka hayatin makmunat laa yaclamuhu illa ahli macrifatu billahi wa ida nataqu bihi lam yajhalhu illa ahlu ligtiraari billahi fala taxqiru aaliman ataahu llahu ilman minhu fa inna allaha azza wa jalla lam yaxqirhu ida ataahu iyaahu kon xam-xam bi yàgg na fi ndax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne am na yenn ci xam-xam yoo xamante ne dafa sell lu ñu nëbb la kenn du ko xam ku dul ma maarifatu billah kon baatu ma maarifatu ñëwaat na mu ne ca ña ko xam buñ ci waxee du ñu réeral ñu dul ñi nga xamante xamuñ xam-xam wala jotuñ sax mu ne bu leen doy bu leen doyadaleeti koo xamante ne yàllaa ko jox xam-xam bu jóge ci moom xam-xam boobu jógee ci yàlla nag ci boppam mooy maarifatu billah mooy xam gi nga xam sa borom mu ne ndax yàlla kat du doy dal képp ku mu jox xam-xam boobu kon yonent bi mu ngi moytuloo ñi nga xamante ne nanguwuñ ba pare ne duñ ko nag maarifatu boobu nag ci boppam wax ju am solo la cheikh muqlid diin benn wali yàlla la dafa wax ne kullu man sadaqa bi haazal ilmi fa huwa min alxaasati wa kullu man fahamahu fa huwa min xaasati alxaas wa kullu man abara anhu wa takallama fiihi fa huwa najmun alladi laa yudrik cheikh lii dafa wax ne képp koo xamante ne dëggal na ne xam-xam bi dëgg la mu ne kooku ci xaas mu ne képp koo xamante ne dafa wax ne daf ko comprendre maanaam jot na xam-xam mu ne kooku ci xaasu xaas yi la bokk mu ne kii dafa am xam-xam bi ba pare di ci wax mu ne kooku nag biddéew la boo xamante ne neexut di détecté neexut a xam kon loolu lu rëy la te cër bu rëy la ci xam-xam boobu nag ci boppam moom la Seydina Ali doon wax naan maay buntu xam-xam moom la Seydina Ali doon wax naan lii ilmun fii baytin la lahu xuluqun daat mafatixuhu wal baabu maxfulun maxluqun maa ngi xeetu xam-xam boo xamante ne mu ngi ci néeg tëj nañ ko caabi ba réer na loolu yépp moo doon maarifatu billaahi tu boobu nag ci boppam dama dégg bu yàggut ci tele bi kenn ne kilifa la bokk ci tariqa tijaan ma seetaan ko ci télé RTS 2 jamono bu yàgg conférence bi yépp mu ngi ko def ci ne maarifatu xam yàlla amut caaxaan la ñi koy woote caaxaan la mooy ñi mag ñeeg ñu ndaw ñi ci caaxaan kese lañu waaye alhamdulilahi ba ñun yàlla ubbil ñu suñ bëtu xol bañ dëkkal may yàlla ci ay jaamu wax ji dafay yàgg xam-xam bi dafay yàgg damay tënk ndax yonent bi doy nañu misaal Cheikhu Tidiane doy nañu seede yonent bi amoon na maarifatu billah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci benn xadis ne walam ara inda ru'yati rabbi ahadan min xalqihi xatta zanantu anna man fi samawati wal ardi kulluhum qad maatu waxu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii dafay tegtale ne maarifatu billah maanaam xam yàlla am na bëri na waaye bii lañ ci jël ndax yonent bi dafa wax ne ba mu gisee boromam dafa jàpp ne lépp lu nekk ci juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf lépp jóge na fi lépp a dee loolu nag kot la lu sew la ñi am maarifatu billaa rekk mën a dégg ne nekk te yonent bi àgg na yàlla xam na maarifatu billaa jotoon na maarifatu beneen waxu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafay tegtal ne xam-xamu góor ñi dëgg la yonent bi dafa wax benn saxaabam ne ko law dalaytum bi xablin ilal ardi ilal ardi sufla la habattum ala allahi yonent bi mu ne sallallahu alayhi mu ne boo leen jëloon buum yoor ko ba ci suuf suufi suuf buum ba dana laal yàlla te nit ñi bu ñuy wax yàlla seede na dañu yëkkati seen loxo sa kaw te ñaari yàlla amut kon huwa ma akum ayna ma kuntum yàlla ngir ñun fu mën a nekk ndax ñun sax ñu ngi fi ñun kon yi ay code yu sew la yoo xamante ne mooy wéral nga mu doomu aadama ndax Cheikhu Tijaani dafa wax ne lawlal maarifatu lamma xalaqa llaahu al insaan loolu yonent bi wax waaye Cheikhu Tijaani dafa wax ne inna asla dunubi kulluha zanbul wujudi cosaanu bàkkaar yépp mooy bàkkaaru ne fi maanaam làmb sa bopp yëg ne am nga gis sa bopp yëg ne nekk nga mu ne loolooy cosaanu bàkkaar yi la ko baal nag nan la ñuy def ak wax jooju Cheikhu Tijaani amoon na maarifatu Cheikhu ak àggoon na yàlla amoon na maarifatu billah ndax moom it waxam ji dafay tegtale ne xam-xam bi dëgg la te àggoon na yàlla Cheikhu Tidiane dafa wax ne falaw irtafa alxijaabu an zaati min xaysu hiya hiya wa samiat kalaamuha min xaysu huwa la adrakat ne bés buñ la uññilee sa kiiraay sa digganteeg sa borom sa mu nekkee waaye itamit nga déggee yàlla ci yàllam ja ci kàddoom ga mu ne wallaahi di nga xam ne kàddu yëpp benn kàddu la wala xaw ma nan nga koy gën a déggee kon Cheikhu Tijaani waxam yi dafay tegtale ne Cheikhu Tijaani amoon na maarifat te moom mooy sëriñu Tijaani jàngale nañ ne daan na wax ne faxriq fi baxril waxdati tara waxdatuhu tarfa an al xujub xata tara aswadun bi dittin jàng nañ ne Cheikhu Tijaani daan na sant nit ñi naan faxriq fi baxril waxdati na nga ci géeju kenn ak yàlla ki di nga xam ni yàlla nekkee kenn wala di nga gis ni yàlla nekkee kenn tarfax ankal xojubu kiiraay gi dañ la muri li la teree gis sa borom li la teree xam sa borom kiiraay googu dox sa digganteeg moom dañ la koy muril xatta tara aswatan bi duddin ba loo loo xooloon di ko gisee nen ne nga gisee ko contraire ba ci gàttal waaye ñu mën a dégg wax ji ñu ngi koy dégg wax jooju nag yemut Cheikhu Tijaani rek ndax ñuy wax naan Mawlaana Abdou Salaam wax la ne ci ñaanam ba ci julleem ja mu ngi junj wax jooju tamit Cheikhu Tijaani wax naan waxriq nii fi ayni bahril waxdati tara xatta laa ara wala asmau wala ajida wala oxisa illa biha mu ne yow yàlla nang ma labal ci sa géeju kenn ka ba fa may mujj dootuma gis dootuma dégg dootuma jot dootuma yëg lu dut moom maanaam jeex tàkk ci yàlla ba dootoo gis lu dut yàlla dootoo yëg lu dut yàlla dootoo dégg lu dut yàlla dootoo jot lu dut yàlla kon nga gis ne góor yàlla yàgg nañoo chibli nag góor yàlla bu mag la moom it wax na ne aw awit nil wisaala nga gis ne moom chibli wax na wax jooju wax ci bu day gën a gudd dafay tegtal ne loolu yëpp waaye doy nañu nag yonent yàlla muhammad ak Cheikhu Tijaani ne maarifatu billah am na lu ñuy àgg la lu ñuy jot la lu ñuy dundee la te loolu rekk mën a musal jaam bi waaye ñu dellu nag tënk ko ci ñun ñëpp fi bokk mu Cheikhu Tijaani Cheikhu Tijaani ci boppam moom doy na rek tegtal moom moo jógal boppam doon ut ay sëriñ ñii ne vingt cinq tariqa la dugg ñii ne topp na ay junniy sëriñ ay téeméeri sëriñ waaye fañ conclusion bi mu def Cheikhu Tijaani ko waxtafal boppam boo demee ci ifaadatul ahmadiya Cheikhu Tijaani mu ngi wax naan inna axasna an mashaayikha iddatun wa radiyallahu anhum fa lam yaqdillaha minhum bi taxsilil maqsuud innama sanaduna sayiduna wa ustaazana fi hadihi tariqi ala sayidi lwujud sallallahu alayhi wa sallam wa qad qada allahu bi fatxina wa wusulina ala yaddihi laysa li gayrihi min asuyuuxi fii na tasarrafa wa kafa Cheikhu yi dafa wax ne ci ifaadatul ahmadiya jógoon naa uti sëriñ jàpp ci ñu bari waaye yàlla mujjut dogal la ma doon ut ci ñoom la taxoot may jàpp ci ñoom di ko ut ci ñoom mujj yàlla mujjut a dogal ma jot ko ci ñoom sama càkkutéef mu ne waaye tey sunu wéeruwaay sunu sang ku ñuy jëlee ci moom mu ñuy jàngal ci tariqa tijaan bii ci yoon wii ma jël mu ne mooy sama maam sayyidul wujud sallallahu alayhi wa mu ne yàlla mujj naa dogal sama fatxu maanaam sama fatxu ak sama wusul sama ubbeeku ak sama àgg ci yàlla gi ñuy weddi li tijaan yi di weddi tey àgg ci yàlla Cheikhu Tijaani mu ne la ma doon ut ci sëriñ ci mujj ma kaa jot ci ñoom la mu doon ut nee na moom àgg ci yàlla la soxoon ak fatxu ubbeeku ci yàlla nee na nag mujj jot ko ci seeni loxo waaye mu ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm mbir mi mu ngi na kaa amee ci loxo maamam si ci loxo maamam muy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu ne ci moom lay tàmbalee nag tasaaroo yaakaar naa lii ku ko dégg boo demee ci ifaadatul ahmadiya Cheikhu Tijaani ngay tegtal lii kon nag maarifatu boobu ci boppam lu précis la lu am solo la lu munta ñàkk ci islaam la ci jaamu yàlla lu munta ñàkk la ci doomu aadama tout court nit rek doomu aadama war a doon produit fini ñu war ko jaarale ci yoon wuñ ko war a jaare ba doomu aadama doon produit fini doon insaanu kaamil maarifatu billah di cee bokk nit pour mu doon dëgg dëgg dëgg doomu aadama ba àgg fa yàlla xoolee adduna bi ni mu yem ni géej yem ak ni mu déggalee yàlla ni asamaan bi em ak ni mu déggalee yàlla ni suuf si bëree njëriñ ak ni mu déggalee yàlla ni garab yeeg picc yi ak njanaaw yeeg jinne yeeg rab yi ba ci malaaka yi ni ñu sellee ak ni ñu déggalee yàlla yàlla xool ñoo ñëpp bind leen xool leen ni ñu déggalee yàlla yàlla wëlbatiku ne yow doomu aadama yaa ma gënal te yaa gën ci lu ma bind dëgg-dëgg doomu aadama war naa wëlbatikuwaat fexee xam lu tax mu gën waaw fexee xam lu tax mu gën dëgg-dëgg nag ci jamono jii maa ngi koy invité ci Saalum Saalum bi Maulana Cheikh Ibrahima Niass moom ci boppam mooy delloo doomu aadama fëgg dënnam dëgg dëgg ne dëgg dëgg nag xam naa lu tax yàlla màgg waaye résultat bi lan lay feeñalaat mooy doomu aadama dana delluwaat ci la tax yàlla gënale ko ba yàlla lam namoon ci moom daf koy continuer loolu ma'rifatu billah moo la fa yóbbu moo tax nit nag fuñ ko war a jaarale yar ko ba mu doon produit fini ma'rifatu billah munu cee ñàkk li bàyyi ñis di séddale moom rek a mën a tabax doomu aadama baatinam ak zahiram ci ngay jógee dégg alquran ci ngay dégg ci ngay jógee dégg jamono ci ngay jógee dégg yàlla ci ngay jógee dégg wàllu yàlla yi ci ngay jógee doon katax yàlla ne moo gën lu ma bind yow doomu aadama nga dem ba yàlla naan la yaay sama tegtal maay sa tegtal ban àll dox suñu diggante àll boobu mooy ñàkk xam yàlla ñàkk am ma ay foto kon dëgg-dëgg kon lii lu am solo la yonent yàlla Muhammad jotoon na ko yonent yi jotoon nañu ko Cheikhu Tidiane mi ñu boole ci laay wax joxe ci samay tegtal Cheikhu Tidiane moomu dafa toog bés woo taalibeem yi ñi ko gën a jege ne leen ma bëggal leen boo demee ci Faatu Ahmadiya wala yeneen téere tariqa bi duñ ko ci fekk mu ne maa ngi leen di bëggal ne awsaani sallallahu alayhi wa sallama ala waladay sayid Muhammad Kabir wa axiihi sayid Muhammad al Habib wa dammana lahuma maarifatu ma wa dammana lahuma xayran kasira Cheikhu Tijaani dafa bés woo ñi ko gën a jege ne na kaa leen ma bégal leen kon kontaan na bés boobu sama maam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gise nañ mu may dénk sama ñaari doom waaye tamit di ma wax ne garantil naa leen xam yàlla sa ginnaaw te garantil na leen yeneen yiw yi dul jeex kon bu fekkul woon ne maarifatu billah lu précis la du ci kontaan bés boobu ne ci yonent bi garantil na ne ñaari doomam yi dinañ xam yàlla ginnaaw kon ku fiy toog naan caaxaan la waa feebar war nañ la faj war la faj bu baax waaye nag dama soon dégg benn woykat di wax Sénégal yaa war a wax yaa ñu saf bum la tax wax loo xamut muy njaga mbay yàlla ko yàlla yërëm daan na wax wax jooju te dëgg la tey Sénégal ku ne na ku koy waxal te tus xamuñ ko nag ñoom ñëpp ñu ne faw ñu wax te sax la ñuy wax du seen pis du seen sujet du lu jàng du lu ñëpp du lu ñu xam looloo tax coow li bari tey moo tax nag kon Cheikhu Tidiane ñaari wax yi rek war naa tax Tidiane bu ne jox uti ji yàlla ndax Cheikhu Tidiane wax na ne kun aabidan lillahi qasdan li wajhihi bila xawfi niiraanin wala qasdi jannatin yow Tidiane bi doonal jaamukatab yàlla jublu ci jëmmi yàlla ji wala boo ko wax jaan ci jawaar ma aani te Cheikhu Tidiane ko nettali kun aabidan lillahi doonal jaamukatab jublu ci rek am jëmm yàlla ja bilaa xaw fi niiraanin ragal safara bu mu tax ngay jaamu yàlla ak xeetu jaamu goo mën a taxawee waaye bugg àjjana bu mu tax ngay jaamu yàlla ndax àjj na jaam la safara jaam la kon yow waroo jaamu yàlla ndax loolu da ngay jaamu yàlla pour am jëmmi yàlla ja wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadaati wal asyi yuriduna wajha yaakaar naa noonu la aaya bi tëddee muñal bakkan bi maanaam lépp lu lay gàllankoor su jëm ci yàlla ànd ak groupe bi nga xamante ne ñooy jaamu yàlla suba ngoon di tudd yàlla suba ngoon te soxlawuñ ci àjjana taxul leen a jóg de ragal ci safara taxul jóg li ñu soxla mooy am jëmmi yàlla ja mooy xam yàlla àgg ci yàlla kon dëgg-dëgg jaamab yàlla yépp war nañoo jóg uti ko moo tax Cerno Xasan Dem yàlla nañ ko yàlla fayal ponkal la ci ponkal ñëpp dégg nañ histoire ba mu jàngee téere tariqa jàng ko gis ci ay mbir yoo xamante ne bagaasu tariqa bi la amut lu ko ci leer mu nekk sëriñam ba sëriñam génn àdduna ñaari at nekk màkk mu gis ko ci gént sëriñam ne ko boole naa la ak Cheikh Ibrahima Niass amul ci kaw suuf ku ko gën a xam yàlla sëriñam ba dee ñu suul ko màkk boo leen demee ci youtube da ngeen gis waxtaan boobu mu koy waxal boppam kon mbir mi du caaxaan te kooku ponkal la ci tariqa bi na Xasan dem boobu ndax wax ci boo demee ci yaarama aani wala boo demee al bu ñu wax euh, euh, ni nga xam soo demee Mouhamad Nazif yi mu ngi ci nettali ay nettali dem ci biir sax ñu ngi la ciy jàngal naan la qum fa qum yow tijaan bi jógal yow taalibi bi jógal wajtahid wajid fil ahmadiyati wa dax kulla ma yahwa anil ahmadi mu dem ba ci biir wax ci mu ne wa taali jawahirul maani wa jaamiu ibni misri fa fiha mazaya tariqati mu ne tariqatuhu ala taraiqi kullaha wa aqrabu linnabii bi xessin wa wuslihi kon wax ci wax ci solo boo demee téere bi mu ngi wax taalibe bi yow taalibe tijaan bi wal jaamab yàlla bi jógal te nga takk sa góor góorgóorlu ci ahmadiya maanaam ci tariqa bi maanaam ci cheikhu tijaan yi mu ne nga teg ci suuf lépp loo xamante ne du loolu teg ko ci suuf sentiment yëpp rotal ko nga jëm ci loolu mu ne ko demal nga liiri téere bu ñuy wax yaayar ma aani demal nga liiri téere bu ñuy wax aljaamiu bu misri mu ne boo demee ci biir téere bi am na ay indication am na ay tegtal am na ay bagage yow taalibe bi bagage yooyu nag fekk ko fa maarifatu moom la guur yàlla yi doon wër fekk ay xaaya ak ay xadis yoo xamante ne yéem na jaami yàlla yi ñooñu nag takk seen digg di ut ak i mat ak jamono pour mu dimbali leen ponkal yooyu jógoon nag ci la ñu dajeek ñu bari Mawlana Cheikh Ibrahima a ba moo tax bokk na Thierno Hassane Deme mu ngi ciy wax naan bi mu jotee xam-xam bi ba ko maamam ba ko sëriñam ba tegtaloon ci gént bokk na ci li mu waxoon mu ne hallimu ila ulumil qawmi qad infajarat manabiu sharabuha wa talaat sumusuha fi samaai zamanikum wa taat nuruha fi ajwaai awtikum hallimu maanaam accaleen kenn ku ne jógal jógal bàyyi li ngeen yor ngeen jóg ilaa ulumul qawmi ngeen daw jëmi xam-xamu góor ñi muy maarifatu billah xadim farajarat manabi sarabuha mu ne mband ya naan wa kalaate na toj na ndox maa ngay walagaan wa talaat sumusuha fi sama zamanikum maanaam jant xam yàlla fenk na ci seen asamaanu jamono na daat nuruha fi ajwaaji waxtikum maanaam ceeñeeru jant xam yàlla mu ngi sar di bay wàcc seen goxi koñ yi mën a dara kenn muccatul tey mel ni jant bëccëg bu fenkee boo nekkee sa biir néeg lu lëndëm lëndëm bu jant bi fenkee turu bi lu mu sew sew ci ardoise bi wala ci seng bi wala ci fenêtre bi wala ci bunt bi dana la fekk ci biir néeg bi ne jant bi fekk na loolu mooy maarifatu billah loolu mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass amul ku yëgul ne jant bi fenk na samsul maarif amul ku yëgul ne fenk bokk ci rek ak ñàkk cee bokk moo tax yàlla di wax ci xadisam ba xadisul qudsi ba yàlla di wax naan eh yow jaamab yàlla bi may dumooyu bul yëkkati mbagg de yaakaar ne yow ci boppam dalaa neex nga du mooyu ma déedéet ñun yàlla ñoo la njëkk a du mooyu buñ la jublu woon dañuy roof si lépp ne bëri jubluñu kon nag dajeg Cheikh Ibrahima Niass dajeg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass jot ci xam-xam bi kooku yàllaa koy maye yàlla bu la yërëmee dalay boole walu yu bi te Cheikh Tidiane neen ni yàlla nëbbee walu yu bi noonu la nëbbee jëmmam ji kon boo xamee wal boo xamee walu yu bi rek xam yàlla boo xamee yàlla rek xamee walu tax nag kon dëgg-dëgg lu rëy la bu ñu ko tuuti buñ ko neenal kon ñu ngi woo ñooñ jamono won leen ne leen dëgg-dëgg lii mooy setal seen imaan lii moo leen di delloo ci nit dëgg lii moo leen di jotloo seen càkkutéef lii mooy dindi njàqare tiit yi jaaxle yeeg stress yi ci kaw suuf dëgg-dëgg nag maarifatu billah moo koy dindi ci jaam yàlla yi te jeunes yi tey stress bi ñu am àdduna bi songu leen ah ñëpp ñëw songu leen bëgg leen këf bëgg leen nangu ci yonantu yàlla muhammad ginnaaw bi jaayanteeg moom bëgg leen nangu ci Seexu Tijaani ginnaaw bi mba jaayanteeg ñoom bëgg leen a nangu ci yàlla ginnaaw bi jaayanteeg moom dëgg-dëgg nag Cheikh Ibrahima ñu sa ñëw nanguwaat poñe bi ñu saytaane poñe gore leen seen digganteeg sama borom moo taxoon gore googu la Seexu Tijaan doon wax naan muridu Tijaani xurrun fi nafsihi taalibe Tijaan dafa am liberté ci boppam. mooy lan taalibi tijaan ban la mooy ki am maarifatu billah kon dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima Niass mooy goreel jaam ñi tey waaw loolu nag mos ku ñëw rek di nga xam li xew moo tax nag fatxu googu ci boppam ba tey maa ngi ciy wax Cheikh Ibrahima Niass wax na ne inna al fatxa nafxatun qudsiyatun tujzibu al qalba al abdi ila al xadrati in baqa ala al mujahadati wa tathir an razail al axlaaqi sakana wa illa taara wa yarjiu al abdi fi ldalaami yutiru kaman raa fi manaami shay'an yuhibbuhu wastayqaza Cheikh Ibrahima Niass dafa wax ne maarifatu billah bii nag yéen taalibe yi bu leen ko jot rek jaaxaan ndax mën nga kaa jot ba pare ñàkkaat ko te taalibe baay yu bari fi mu ne gëmuñ ne yàlla ba pare ñàkk ko bàyyi ko wax mu ne fatxu daal benn noyyi buy ñëw rek ëf sa xol bi rek désinfecté lu dut yàlla sa xol bi rek ngën rek yëg mbir mi mu jeex mu ne waaye nag boo góor góorloo lépp lu la mayoon lii nga taxaw ci temb mbir ma dafay sax ëppee ba dellu ci lëndëm ngeeg tilim nga nga nekkoon mbir ma dafay naaw nga dellu ci lëndëm gi gën a tar nga nga nekkoon mel ni ku géntoon lu mu bëgg jug ko rek yeewu wallaahi dootoo fa jëmati ndax nelaw gi nelawaloo sa bopp te gént gi indiwoo ko woon mooy ku yàlla dimbali ba nga dajeeg maarifatu billah xarsal sa tànk tubéy dëgg-dëgg dund ci dee ci maarifatu billaa boobu nag ci boppam lu am solo la ndax Cheikhu yi dafa waxoon ne juróom-ñaari mbir yi nga xamante ne taalibe bi da ko war a ut wala atuwaar yoo xamante ci war a jaar mbir yooyu ci boppam Cheikhu Tijaani wax nañ ci ne juróom-ñaar yooyu duma ko tudd waaye benn laa ciy tudd ndax bëgguma waxtaan bi gën a gudd mooy maarifatu xaayatul xasd bokk na ci mbir mi maanaam xam sa njolloxtaan te ñépp xam ne njolloxtaanu ku mën a doon moo yàlla mun na ngeen xam ne ci yàlla ngeen di teerale kon fexe ba xam yàlla Cheikh Tidiane wax na ko mu ne ñu ne ko lan mooy maarifatu xaayatul qasdi lan mooy loolu mu ne fa huwa rafu lxijaabi an ruuxi rabbaani wa radduhu ila xaalati safa allati kaana alayha qabla tarkibi fi jismi Cheikh Tidiane mu ne mooy ñu uññe ñu dindi kiiraay gi dox sa diggante sa bopp delloo sa ruuxu gi ci jokkoo ak sell ci xaal ba mu amoon balaa ñu kaa dugal ci biir jëmm ji mooy set wecc loolu mooy maarifatu billaahi Cheikh Tidiane nag mu ne ñu ngi koy amee ci ñaari yoon jazbu ak tarbiya ma xam ci ñaar yooyu lay ñëwee waaye ñu ne Cheikh Tidiane yi lan mooy jazbu xam nga nit ñaa ngi koy weddi ci dëkk bi mais baat yi Cheikh Tidiane ko firi Cheikh Tidiane mu ne jazbu ñu ne ko Cheikh Tidiane mooy lan mu ne mooy ixtitaafullaahi al abda min waadi tafriqati ila waadi al bi xaysu laa yasmau wala yura wala yara wala yaqilu illa illa allah billaahi fillaahi anillaahi ilallah Cheikh Tidiane noonu la firee jës ñu ne ko jës bu mooy lan mu ne mooy këf gi la yàlla di këfal boppam wala boo këf gi yàlla di këf jaamam jëlee ko ci barabu ràññee ak xàmme lu bëri yóbbu ko ci jeexal lépp lenn di lenn mu ne foofu nag kenn du fa dékkee baa nga fay gisee baa nga fay xeloo lu yàlla ci yàlla jóge ci yàlla jëm ci yàlla sa dara sa lépp lépp lépp lépp lépp yàlla kese lay doon Cheikh Tidiane nee na loolu buñ la ko defee rek jas bu nañ la buñ la sànnee nag dañ lay sànni ci xadaratul qudsi ñu ne Cheikh Tidiane mu ne lan mooy xadaratul qudsi mu ne fa inna man daxalaha xaaba anhu lwujudu kullu laa yabqa illa al mahdat al ulufiyya Cheikh Tidiane nee na buñ la jës boo lañ lay sànni ci xadratul xudsi ñu ne Cheikh Tidiane xadratul xudsi mooy lan mu ne ay ku fa dugg samaadi gi sa yëg gi liñ naan le moi yëg gi nga yëg sa bopp da koy ñàkk da ngay da ngay te boo ñàkkee sa bopp dootoo jeex dara lu dul yàlla kese kese kese kese kese kese kese kese mu ne kàddu du fa am xool du fa am yëg du fa am dem du fa am di ñëw du fa am def du fa am dindi du fa am Cheikh Tidiane nee na bu fa bu jógee li ngay wax mooy laa ilaha illa ana subhaani ma azama sha'ni ba pare jaamu yàlla yi wala ay taalibeem di wet di dëgg-dëgg nañ leen yërëm moo tax nag foofu la taalibe Tidiane bi di doonee gor moo tax Cheikh Tidiane yi wax ne kon ñooñu ñooñ almutaxaqiquuna ñooñu ñooñ ñi dëkkal yàlla ci yàlla ñu ne ko Cheikh Tidiane mooy ñan mu ne ki dëggu mu ne al mutaxaqiqu bil xaq yarawna allaha fi kulli mutaayinin mu ne buñ la jës boo da ngay bokk ci mutaxaqiq ñu ne ko Cheikh Tidiane ñan ñoo ñooñ mu ne ñi nga xamante ne la ci yàllaam ja mënuñoo gis lu yàlla ci jëmm ja wala dañuy gis jëmm yépp dañ ci gis yàlla mu ne ku dëggal yàlla rek gis yàlla ci lépp ci gàttal wax joo xam bëgguñu ko leeral muy gën a leer nga gis ni kon bàyyis nag ci boppam laaj nañ ko moom ndax am na xam nga yàlla mu ne waaw xam naa yàlla kay ñu ne ko bàyyi ah waaw lan moo ñuy tegtal ne yow xam nga yàlla mu ne dalili ala zalika shuhudu l ayni fi l gayri wa taxaquqi bi rabbi fi kulli mutaayinin bila taayinin mu am feneen fu mu wax ne taxaqaqtu rabbi inda kulli muayanin wa lastu ara taayina falzim li mazhabi Cheikh Ibrahima Niass dañ ko wax ne ko yow ndax wala boppam moo doon laaj boppam ne ko ndax aarif bi laa nga mu ne ko waaw mu ne ko lu ñuy tegtal ne aarif nga bàyyi mu ne damaa dëggal yàlla ci bépp jëmm te taxul ma def yàlla muy jëmm jàpp leen foofooy sama yoon nga ñu ne ko waaw bàyyi ndax aarif nga mu ne waaw ñu ne ko lan mooy sa tegtal mu ne sama tegtal mooy damaa jëkkal yàlla ci bépp jëmm te taxul ma def yàlla muy jëmm waaye tamit li ma tegtal ne man Cheikh Ibrahima Niass aarif la mu ne wa ridaihi li qadaihi wa taslimi li zahiri ahkaamihi loolu moo ma dëggal ne man aarif laa xam naa yàlla waaye tamit aarif billaa nan laa xamee yàlla mooy dama dëggal yàlla ci bépp jëmm te taxul ma def yàlla muy jëmm loolu moo may tegtal ne xam naa yàlla waaye tamit li ma won ne man bàyyi man aarif billaa mooy dama wëlbatiku nag lépp lu yàlla dogal rek man ma gërëm ba pare jébbal ko sama zaahir ak sama baatim ci mbooleem àtteem yi mooy li mu wax ne ida kaanat al aqdaaru min maliki l mulki fa siyaanu indi maa yasiru ma mu ne bu fekkee ne li xew ni àdduna bi di déroulé ver moi man Cheikh Ibrahima Niass du kenn ku yàlla parce que kenn newu fi ku yàlla mu ne bii li ma ci neex ak li ma ci naqari li ma ciy jooyloo ak li ma ciy bégloo moo yem ci man kon dëgg dëgg dëggal na ne dëgg dëgg dara am fi dudul yàlla xam na ko ba set waaye it tamit dëgg dëgg dund na ko kon nag woon nañu ci yoonam woowu foofu mooy yoonam kon nag Cheikh Ibrahima Niass moomu ci boppam dëgg dëgg moo ñu jàngal maarifatu billah Cheikhu Tidiane nag laaj nañ ko maarifatu billahi fatxu mooy lan Cheikhu Tidiane mu ne fa inna xaqiqatil fatx huwa irtifaaul ujubu xaail xaaila bayna abdi wa bayna mutaalaati xaqaaiqi sifaati wal asmaai mu ne àgg ci yàlla mu ne fatxu mooy ñu dindi la ñu yëkkatil la xijaab bi dox sa digganteeg jàmbeeg borom bi loolu junj la mu ne wa maxu suuratul akwaani min ilmi al abdi wa xissihi wa idraakihi wa fahmihi wa taalluqihi xatta laa yabqa lil gayri wal gayriya wala wujuda wala wujuda illa wujud alxaqi bilxaqi lilxaqi fi lxaqi an ilxaqi kon nga gis ni nii la Cheikhu Tidiane définiré al fatxu mu ne doo gis lenn mu ne lépp lu am ci kaw na bi comme ni yonent yàlla Muhammad waxee ne ah, ba ma gisee ba ma gisee yàlla lépp lu ne ci kaw na bi dafa effacé wu sama kanam Cheikhu Tidiane tamit na ko nee na ku ñu dindil sa mu ne alam bi dañ koy effacé dootoo dégg dootoo comprendre dootoo aju jeex takk ci yàlla dañ xayru euh, ak xayri ya foog nag yaakaar naa dara du am lu dul am ak yàlla ki ci yàlla ci yàlla ci yàlla ci yàlla nga gis ne kon dëgg-dëgg Cheikh Tidiane wax lii dëgg-dëgg Tidiane taxaw fii di am lu muy wax daan naa dégg sëriñ bi di wax ne bàyyi dafa wax ne annaasu yataajabuuna an kathratil fatxi indana wa ana ataajabu bi Tidiane li ci lam yuftax ilayhi mu ne nit ñi ñu ngi éemu ci bëri gi fatxu gi am ci loxo nit ñi xam yàlla ni mu bëri ci sama loxo waaye man bàyyi ñes loolu éemu ma man li ma éem mooy tijaan bu xamut yàlla waaw tijaan bu xamut yàlla ba koy weddi loolu moo ma nga wax ji dégg nga wax ji indi say meuble tabax sa kër ba rafet ñu dugal la ci biir kër gi ngay waat ne moomu ma kër gi moom ma meuble bi nit ñi dañ naan du wéro mooy tijaan buy weddi xam yàlla say bagage moo tax ñu ko Cheikhu Tidiane lan mooy maarifatu xam nga wax Cheikhu Tidiane wax na lan mooy fatxu ñu ne ko Cheikhu yi lan mooy maarifatu baat yi laa bëgg nit ñi teg ñu mu ne maarifatu billah cheikhu tijaani mu ne irtifaaul xujub aydan mooy lan wa sifat an xuyubul xaqaiqi l asmaai mu ne mooy ñu dindi la kiiraay dégg nga wax ci li nga xamante ne moo la fàdduloo dëgg-dëgg tur yeeg abdul aziz dabbaax borom ibrisu zahab moom dafa wax ne inna allaha taala laa yuhibbu abdan xatta yu yarifuhu bihi ala asraarihi taala fa yaqau lahu ljazbu ilallahi taala abdul aziz dabbaax borom ibri zahab dafa wax ne mooy li may wax ne xam-xam bi yàgg na fi wa bil maarifati yutalliu kii avant Cheikhu Tijaani la mu ne bu yàlla buggee jàmm bi da koy xamal boppam mu ne ci biir xam gi ko xamal boppam mu ne ci la ko yàlla di feeñalee nag ay secret yoo xamante ne nëbboon na ko mu ne bu ko feeñalee ay secret yoo xamante ne nëbboon na ko nee na si saa si la jàmmam ba di am jas te kii dëgg-dëgg jiitu na Cheikhu Tijaani Cheikh Umar Fouti lan la wax ci xam-xam bi ci maarifatu mooy bagaasu góor yi yàlla yi Cheikh Umar Fouti mu ne law anna rajulan jamaa al ulumu kullaha wa saxiba tawaifu nnaas laa yablugu mablagha al rijaal illa ala aydi al asxaabi al izni al xaas raama alwusula ila xadrati illahi bi nafsihi min gayri istisxaabi cheykhin murshidin aw aslin maqzunin lahu fi irshaadi waarisin kaamilin faqad raama almuxaal boo demee ci rimaax di ko fa fekk Cheikh Omar Fouti mu ngi wax ne benn góor yàlla bu jóg rek sexe ba xam ba jàng xam-xam yépp goreel téere yépp fexe ba topp mboolem kuréelu yàlla yi mboolem kër sëriñ yi topp mbooloo yi jeexal ko Cheikh Omar Fouti mu ne du tax nag nga jot loolu rek jàng téere yépp goreel ak ànd ak mbooloo yëpp fréquenté sëriñ si yëpp Cheikh Cheikh Omar nee na taxul nga jot cëru góor yàlla yi mu ne li la koy tax a jot du bokk ci mbooloo yi du jàng téere yi du xam ñëpp xam nga da toog ci dëkk bi kii naan sëriñ sama xarit la fréquenté naa ko sëriñ dem naa fa damay dem xadara sëriñ diw ku ma xam la du dara Cheikh Omar Fouti nee na loolu du tus àndal ak ñëpp fréquenté góor yàlla yëpp jàng naa téere Cheikh Omar Fouti nee na jeexalal mbooleem fànn téere yi loolu taxul nga du illa bu tax nga jot li góor yàlla di séddale ñu ne ko ah Cheikh Omar Fouti nu ñu def mu ne du tax nga jot mablaga rijaalu càkkutee fu góor yàlla yi mu ne lu dul nag nga dem ommatu ci borom ndigal gu wér mu ne képp ku jóg nag ne dafay jéem a àgg ci yàlla ci boppam ne duma ut sëriñ da ngay dégg sax dëgg man sa papaay sama sëriñ yow sa papa daa xam yàlla waaw ñun suñu famille suñ suñ sëriñ déedéet du noonu dem ci ku ko am jox la ko Cheikh Omar Fouti nee képp ku jóg nag ni dafay jéem a xam boromam ci rek say ittey bopp bañ a ànd ak benn góor yàlla bañ a nangul kenn Cheikh Omar Fouti mu ne yow daal maa ngi gis ne sa danga danga sooy te joo jot dara mu ne faaw ñu góor yàlla ju xam yàlla mën laa ommat ci yàlla ba pare teg ci am ndigal ku wér ak ndono gu wér ci yàlla ndono gu wér gu muy jële ci yonent bi jële ko ci Seexu bu mot sëkk nag mu ne képp ku amul ku mel noonu wallaahi la ngay ut doo ko am mbir yi du sant du dëkk du siiw du tur fi ko yàlla def rek nga koy jële ci loolu la Cheikh Omar Fouti wax Cheikhu ci boppam da cee wax moom it Cheikhu Tijaani nag moom dañ ko wax ne ko waaw Cheikhu Tijaani xam yàlla gi ak fatxu gi ak wusuul gi ndax yow jotoon nga ko mu ne jotoon na ko parce que jàngal nañu fatlu ak usul ah ñu laaj Cheikhu Tijaani ci boppam ndax jotoon na ko mu ne jotoon na ko ba wax fiñ ko jaarale Cheikhu Tijaani wax na ne jañ nañ ko du fetu fi xadaratil xay bi daf atan waxidatan na nit ñi déglu bu baax xam nga nit ñi dañ naan xale yi dañ leen dugal ci luñ xamul dañ leen a xëcc di leen jasbu di leen dugal ci kenn xamut te lii Cheikhu Tijaani mooy suñu sëriñ ñun ñëpp moo ci jiitu Cheikhu Tijaani fatlu gi ñuy wax ak jës bu xaal bi taalibe yi nekkee moom moo ko jëkkee Cheikhu Tijaani dañ ko ko laaj mu ne tafeetu fi xadratil xaybi dafatan waxidatan fa saara awali axiri wa axiri awali wa kulli juz'i wa juz'i kulli fa sirtu ana huwa huwa wa huwa ana min xaysu huwa la min xaysu ana wa xiina zalika law shu'iltu an alfi alfi mas'alatin la ajabtuha bi jawaabin waaxidin iz sirtu kal misbaaxi law su'ilat anni almasabixi ma naqusa min dawi shay'an allahu akbar Cheikh Tidiane mu ne dañ ma bipp sànni ma ci xadra yàlla bi benn bipp loolu mooy jës mu ne sama njëkk mujj sama mujj sama mujj mujj doon sama njëkk sama lépp mujj doon sama xaaj sama xaaj mujj doon sama lépp kon jaxasoo na de mu ne ma mujj di moom yàlla moom yàlla mu mujj di man waaye waxuma sama man gi ci sama man gi ci moom yàlla moomam gi laa waxee sama man gi fii ma toll nii ku ma laajoon junney junney laaj benn tontu laa koy ton wala mu mujj mel ni lamp mu mujj am leer goo xamante ne suñ ma taalaloon limiyeeru àdduna ak jamono mu wàññi sama leer dara leer foofu nag ci doomu aadama dafa am luy tegtale leer incha allah dinañ leen ko leeral dafa am luy tekkale leer ci doomu kon foofu lañ jës boo Cheikhu Tijaan yi mu am fatxu te lii ku ko dégg te am fatxu jaar ci mbir mi rek xam nga ne Cheikhu Tijaan li mu wax waaye nag ku munta dégg lii dëgg-dëgg may nañ la ngànt jërëjëfee Cheikh Ibrahima Niass la ñuy wax moo tax kon Cheikhu Tijaan ñu laaj ko bu ñu jës nit fan lañu koy jëmee mun a xadaratul si ñu ne xadaratul si pays bu sell ba mooy fan Cheikhu Tijaan mu ne xadaratul qudsi fa inna man daxalaha gaaba anhu alwujudu kulluhu fa lam yabqa illa al uluhiyatu almahdati xatta nafsuhu tugibu anhu fa fi hada alxaal la nutqun lil abdi wala aqlun wala hammun wala xarakatun wala sukunun wala rasmun wala kayfun wala aynun wala ahadun wala ilmun wala xaddun wala ilmun falaw nataqa al abdu fi hada alxaal laa ilaha illa allah subhaani maa azama sha'ni mu ne li annahu mutarajimun anillaahi azza wa wax ji lu muy tegtale mooy Cheikh Tidiane dafa wax ne kuñ dugal xadaratul qudsi nan lay mel xadaratul qudsi du benn barab de fépp la ak waxtu wi ngay xam te mu leer la ne dara amu fi dul yàlla waxtu woowu seconde boobu cerse boobu barab boobu foofu mooy xadaratul qudsi Cheikh nee na boo fa duggee sa léppay dem doo fa dese dara comme ni ma ko waxee sànq moo tax nag boo demee ci borom buxyatul mustafid ba tey mu ngi tegtalee xadisul xadisul qudsi ndax nit ñee koy weddi te lii yëpp téere tariqa bi ko indi mu ne inna xadratul quds bi gaayati safaa'i laa tuqbalu lgayr gayr li gayriya fa hada alxaayatul safa borom buxyatul musafir dafa wax ne innal xadratul qudsi fa ñuy wax naan xadratul qudsi buñ jës boo taalibe bi mu àgg ci yàlla fa lañ koy sànni fa lay yégee fa lay àgg ba xam ne fii laa ilaha illa allah fa lay xamee ne dara amu fi dut yàlla mu ne foofooy njolloxtaanu set sell njolloxtaanu sell nee na foofu la mu ne foofu barab boobu nag duñ fa nangu xayru ak xayri foog nag yaakaar naa moom aggut xadatul ci lu la leer rek nga fay jot mu ne li ann allaha taala ida tajalla lil abdi amaatahu an jamiil akwaani mu ne maa ngi leen di wax ne yàlla ci boppam bés bu rencarné woo jàkkaarloog jëmmi jaamam bi da koy faat da koy faata lépp lu nekk ci kawlu bi maanaam doomu aadama ci boppam bés bu yàlla defee tëjali ci moom lépp lu dut jëmmi yàlla ji moom disparaître loolu la yonent yàlla muhammad wax walam ara inda ru'yati rabbi ahadan min xalqihi xata danantu anna man fi samawati wal ard kulluhum qad maatu loolu la yonent bi wax kon borom bughyatul mustafid dafa wax ne ida tajalla lil abdi amaatahu an jamii l akwaani falam yaqilu ba mu jeex kon nga gis ne kon wax yi yëpp dafay tegtale ne dëgg-dëgg xam yàllaa ngi noonu te Cheikhu Tijaan yi dëggal moo taxoon Cheikhu Tijaan di wax naan inna asla zunub kulluha zambul wujud kon daal cosaanu bàkkaar yi mooy bàkkaaru ne fi moo tax nag kon lii ku ko jot bu mu ci yëkkati mbagg waaye ku ko amut tamit bu mu ci yëkkati mbagg ki ko jotut nañ ko yërëm waaye ki ko jot tamit bu mu ci tiitaroo xam ne walaw la aleykum wa ma zaka min ahadin abadan walakin allaha yuzakki man yashaa képp ku jot ci mbir mi daal bu mu yëkkati mbagg ngëneelu yàlla la te yàllaay xool ku ko neex ak yërmandeem jox ko ko du muus du dara lu koy jox doomu aadama te xel mayu dara doomu aadama lu tut yàlla rekk lay bëgg may dara ci jëmmam ji may la ko jaaree ko ci yonentu yàlla muhammad jaaree ko ci Cheikh Tidiane waaye nag dëgg-dëgg mu jaaree ko ci buntam bi nga gis ne Cheikh Ibrahima Niass mu wax ne wa man faataku cheikhul xalilu fa innahu tadaarakuhu fi zamanu muhaalum cheikhul xalil mii daal ku mu moy baa nga mooy ku ñu dimbaleeti la ci kaw suuf c'est impossible kon nag yoon wi ci boppam dëgg-dëgg góor yàlla yi daan nañ ko wut moo tax Cheikhu Tidiane jaar ci wax ci yonent yàlla Muhammad jaar ci wax ci moo tax ñun tamit li ñu wax loo mooy dëgg-dëgg la Cheikhu Tijaani waxoon ne alxaqu yalham al abda wal abdu yafhamu man alhama sawaaba waja wajaba alayhi nut li yantafia bihi al gayru dalika al muraadu al aham wal maqsuud kon nga gis ne yàllaay day jaam boppam jaam bi day wi day woowu mooy daraam fi lu yàlla mu ne képp ku ko jot nag dañ cee war a wax ndax ku dut yow new jëriñu ci ndax tariqa bu nekk ci kaw suuf xam yàlla la jëmee jaam yàlla yi fi may tëjee nag mooy fi Cheikhu Tijaani yi doon wax naan qaala lii sallallahu alayhi wa sallama alzim hadihi tariqati min gayri xilwatin wala atidaalin xata tasila maqaamuka allazi wucidta bihi wa anta ala wala xarajin wala Seexu Tijaani dafa wax ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ma saxal ci yoon wi ma la jaarale bul tëju xalwa bul beru nit ñi ba ba ngay jot sama maqaamu bi nga xamante ne dig nañ la ko te buy ñëw daf lay fekk ci xaal bii doo dof doo tilim doo salte doo bàyyi nit ñi sa daray yàlla sa daray jamono doo koy doo ko bàyyi ci xaal boobu ngay yem duñ la xatal doo xat ci sa dund du am benn problème te doo ci sax sonn bañ jot la sama maqaam yooyu yoon woon woowu nag dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima Niass donn na ci Cheikhu Tijaani moo tax tey li jaaxal nit ñi mooy solu lekk naan nekk sa bureau nekk ci camp bi kii dawal vélo baykat bi nekk ci tool wa élève bi di jàng ci terrain bi ki nekk ci biir jumaa ji di xal ndoo ñépp ba kenn ku ne du ñeen moromam yoon wiñ koy joxee nag yonent bee ko diggoon Cheikhu Tidiane jaarale ko ci loolu bàyyi ñis donn ko ci Cheikhu Tidiane yi mu doon lu raar tey utoon yàlla bu njëkk bàyyi sa jabar bàyyi sa doom jaroon na ko bàyyi sa liggéey jël alal ji nga am gedd dem ci gorot yi di lekk lu naqari ndax sa kiiraay moo doon sa jëmm ji Cheikh Ibrahima Niass tey mu ne kullu zi xirfatin fi xirfatihi kullu zi soxlin fii soxlihi kenn ku ne na occupé occupation kenn ku ne na garde métier ma sol leen ba ngeen tolloo góor yàlla yi te duma déranger kenn may googu yàlla ko digoon yonentu yàlla moo ko digoon Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane may googu yonentu yàlla Muhammad moo ko ko googu nag Cheikh Ibrahima donn na ko ci dëgg nag nag ñun nag war nañoo seede ne dëgg-dëgg mbir mi ak ci na ci ñun ba képp ku taxaw ci dëkk bi di weddi xam yàlla amut nañ la may ngant te yërëm la xam ne yàlla du moyu na ayuha almuridu anna inna iraadaka lama fiika yurit na ba yàlla bi dafay wax ne yow mii taalibe bi yow mii jaamab yàlla bi nga xamante ne tey yow yaa ñu dumoo yu bëggoo ñu utoo ñu di weddi ne xam yàlla amut dëgg-dëgg bul yëkkati mbàgg ñun yàlla ñoo la njëkk a dumoo yu bés buñ la jublu woon dañuy roof sa lépp bëgguñu jubluñu kon nag maa ngi wax ne gone gu ci xamut yàlla mag mu ci xamut yàlla yemoo ci di koy weddi maa ngi lay wax ne yërëm naa la te maa ngi lay fàttaliku ne mujj gu rafet moom ragalal naa la ko ndax mujj gu rafet mooy nga dee ci tawxid ci fa wax ne xaqiqatu tawxid la tudrik li annaka ma dumta taqulu mawjudu wallahu mawjudu fa sama ithnaani ayna tawxid laa tuujad laa laa tawxid ida kaana tawxid lillaahi billaahi ilallaahi wal abdu laa madxala lahu fiihi wala maxraj Cheikh Tidiane dafa wax ne tawxid kaay ma jàngal leen ko yow jaamab yàlla bi bi nga nekkee ci biir néeg bi wala ci ruq boo nekk yow kese di yëg ne wéetal nga yàlla Cheikh Tidiane nee na ñaara nga fa ndax yow yaa fa nga yëg ne yaa fi yëg ne kenn nekku fi ku dul yàgg yàlla Cheikh Tidiane nee na génnal ci biti ku la gën a bokkaale ñu ne ko Seexu Tijaan la tax mu ne yëg gi nga fi yëg sa bopp inna asla zunubi kullaha danbul wujudi lawlaahu la shirka yura wala juhuta kon nag alhamdulillah lañuy ñuy wax wax yiñ fi jaar ay waxi borom xam-xam lañ waxi yàlla la te yépp jëme ci fexe ba jaam bi texe waaye wax ci nag waxtaan bi lu muy gudd am na lu ci leer te dafa lëndamoon ci nit ñi waaye am na lu jaami yàlla yi foogoon ne leer na nañ ci ñoom ba ma waxee ci wax ji rek nur na lu lëndamaat ci ñoom loolu ba tey Cheikhu Tidiane yi dafa wax ne loolooy dëgg-dëgg xam-xam Tidiane mooy dëgg-dëgg xam am mu ne boroom xam-xam bi dëgg Cheikhu Tidiane mu ne mooy kan dafa wax ne al aalimu ala al man yushkalal waadixa wa yuwaddaxil mushkila baatinuhu xaqaiqu tawxid wa zaahiruhu zuhduhu wa zuhdun wa tajridun wa kalaamuhu hidaayatun li kulli muridin ne wax ji li ci dafa wax ne boroom xam ñu ne ko Seexu Tijaan yi mooy kan mu ne koo xamante dafay fekk waxi yàlla bu lënt waxal waxu góor yàlla bu lënt ba naññ ba nit ñi naan lu ci lënt mu ne mu fekk lu leer naññ ni faatixatul kitaab ñëpp yaakaar ne amut lu ci lënt boroom xam-xam bi wax ci rek ak mu ne kooku dëgg-dëgg mooy boroom xam-xam kon ay nag mooy kay seen wax yépp mun tey leer ci xam bi ndax ay waxi borom xam-xam lañ kon nag ñu ngi may ngant ci képp ku amul dégg-dégg ci liñ doon wax tamit ne wax ji du dara lu dul ñun daal dañoo jottali rek it mante ne suñuy ndey ak suñuy banam ñoo ko doon di tëbb yonent yàlla muhammad ki nga xamante ne diggoon na ko Cheikhu Tijaani ne ko maadaama yut la wa yazkur fekk mi ngi jàng wértu wi tëbbu gi nga xamante ne yonent yàlla Muhammad garanti ne ma dafay wéy ci askan bi ba pencam yàlla lii nag mooy ngëneeli yàlla te duñu nangu kenn di ko yàqal xeet wi ndax bàyyi donn na ko di jëme ci xeet wi du mës a noppi pour ku ko yàq kon nag maa ngi wax la cheykhaan yi waxoon na kiraami allah tadnu fa tubsira ma xadda sukara doom ñu baax ñi ngelawaay la waay jeg ci leen ndax doom ñu baax ñee moom may yàlla yi ngeen la jege ci leen ngeen teg bët lépp di laan ko jullit daan leen ko junj ci téere góor yàlla yi ngeen teg ci bët làmb ko daj ko muy xam-xam bu leen di may xàqul yaqin loo teg bët kenn du ko werante ci kaw suuf ma ciy wax benn wax kooku mooy Cheikh Ibrahima Niass moom la wax ne magam ba wax ne wali taalamu ann al imaama qad nasala imaamu ahlillaahi ahamatu daraka qad ki doon Cheikhu Tiyaani doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne moo boole seeni maqaama ñoom ñaar ki nga xamante ne mooy bunt buntab yàlla bi xam-xam bi yépp ñuy wax muy baax ci askan wi ba pencam yàlla fa faada min ni sirruhu fala ahadun yaqsudu ni la wax maa arafa la sama ne nekk dund goo mën a dund soo ma jubloo rek xam yàlla ñu ne ko bàyyi lu tax mu ne mbir mi fees na ci man tepp bay sotteeku jëm ci yéen ku ma jublu rek dajeek mbir mi allahu akbar tamit moo tax Cheikhu Tijaani wax ne ilam an allaha jacala fi saabiqi almachiati an almadada alwaasila ila xalqihi min faydi raxmatihi wa fi kulli asrin yajri ma alxaasati alulya min alsiddiqina wannabi faman fazia ila ahli asri aya wa saxabahum waqtada bihim hum faaza bi nayli lmuraadi lfaaidi min almaali wa amma man acrada an ahli asrihi mustagniyan bi kalaami man taqaddama min alawliya tubia alayhi bi taabi wa kaana misluhu kaman kaman acrada an nabiyi zamanihi wa tashriihi mustagniyan bi shan allazi xalaw qablahu fa yusjala alayhi bi taabi laa doon wax muy waxu seexuti boo xam tuloo sa jaamab sa benn jaamab yàlla ame may yàlla yi nga war see xéewlu nga xamante ne boo ko weddee tàkk nga seexuti yaa nag ñooy moytuloo loolu yaalam anna allaha jaala fi saabiqi almashiati na xam ne yàlla def na ci ni tëbboom gi nga xamante ne mayam yi nga xamante ne dafay jóge ci sotteekoo jëm ci mbindeef yi mu ne nag loolu dafay dox ci kaw ponkalu góor yàlla yi di dëggal yàlla yonent yi ña gën a kawe maqaama ci ñoom lay aju jóge ci ñoom nag jëm ci xeet wi ci ñiy dund mu ne ku jamonoon teg ñoom roy ci ñoom tëbboo ci ñoom nangul leen ala fokk di nga jot mayak yàlla yi sotteeku jëm ci mbindeef yi te mayak yàlla yi amut bu ci gën a màgg yàlla may la boppam te bu la ngay dëñ ci bokkaale yàlla te ñépp d'accord nañ ne lu ne yàlla mën na ba mu des bokkaale yàlla mu ne waaye nag képp ku jamonoon teg xam sa jamono moom jamono di Cheikh Ibrahima Niass nga gis ne yàlla li mu am lu muy kawe kawe ñaar la wilaayatoom ñaar yooyu lañu dajale muy jëmmi maqaama Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi yàlla def ko ci moom muy ngëneelam Cheikhu Tijaan lay képp ku yàlla def ci moom muy sa wali yu jamono maanaam li la yàlla di tëbb ci loxoom lay jaar nga xam ko dum te du mooy gi nga ko du mooy tegoo ko fenn lu doog sëriñ ak ay wëlu yàlla yu la jiitu ne ñooñu doy na ma gi nga xamante ne dafay tegtal te araamal nañ la mayu yàlla yi mu ne waaye nag dañ lay méngaleel yow moomu dajeeg sa wëlu yu jamono weddi ko tegoo ko fenn lu dul doyloo ay wëlu yu lu ko jiitu wala ay sëriñ ne ñooñu fenn lu dul loolu rek rek rek rek rek rek Seexu Tijaan nee na dañ lay méngaleeg ku dajeeg yonantu mu oote sa kanam nga dumooyu ko mu ne yàqookooyam enregistré nañ leen ci ñi weddi yàlla Cheikhu Tijaan nee na yàlla duñu yàlla mosal si loolu te dëgg-dëgg nag Cheikh Ibrahima Niass xalifa Cheikhu Tijaani la te Cheikhu Tijaani nee na képp ku xalifaam ci xalifaam yi dagg nañ la ci tariqa Tijaani te bàyyi waxuma la xalifaam ak benn la ci xalifa Cheikh boo xamante ne xilaafatam kenn nattab ko loolu nag moo doon waxtaan bi gudd na waaye tamit lu gàtt la ci li nga xamante ne nit fatu billaahi Cheikhu Tijaani leeral ci yonent yàlla Muhammad Mawlana Cheikh Ibrahima su góor yaa mën a wax waaye lii moom bokk na ci luñ mën a jàllale yàlla yi tey laajoon wasalaamu aleykum wa rahmatullah yàlla na bàyyi fay jërëjëf e bàyyi أبي العباس أفنى المعاني وأبنى معاني شوق في ذا المعاني أبى الشوق إلا أبى الشوق إلا أن يكون ملازمي أتى صرت سكران ساحيا وقد غصت بحر الغيب وقد غصت بحر الغيب في بحر سره ولم أكوان الله ولا متوانيا إلا أن رأيت القطب أحمد أحمدا وقصر وجود الكون سيد باليا حقيقة سر الكون حقيقة سر الكون سعاد مكون وخاتمة الأفراد فردا مساميا تنورته في حضرة قدسية مديرا لكاسات معارف ساقيا لعمري هذا الشيخ عين ولايتنا تفجر من بحر نبوة صافيا alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah